ndox tuuroo an bàq ci des dañ koy wax waaye jàkkaar naa ne bàq kenn du ko naan man li ma gëm mooy su ndox tuuroo dañuy rooti waat ndax ndox lañ soxla woon li ma bëgg a wax foofu rek mooy am na benn montage bu ñu tegal ak élément de langage yu génne ne réew mi dafa nekk en crise institutions yi dañu nekk en crise des institutions et pourtant ces institutions aujourd'hui ñoom ñëpp dañu d'accord ci report ci dañu wax j'ai entendu que ne le président de la République ak le président du Conseil constitutionnel waxtaan nañ ci sen ci décret bi Assemblée nationale s'est passé comme lettre à la poste avec l'aide des gendarmes donc man quand je vois les trois pouvoirs qui aujourd'hui sont de connivence ou n'ont pas de problème pour ce report pourquoi on veut nous faire croire que ni dafa am crise bu fi am pour man Sénégal amul crise des institutions li fi am c'est simple depuis temps booy yàgg nañ ko dund des fois ngay jouer ak ak kenn mu dem ba ci biir xam ne pas bi dina jaxasoo wala damier bi dina jaxasoo mu këpp carte gi loolu rek moo fi xam c'est-à-dire un président de la République qui à quelques heures des élections se rend compte que, euh, que son candidat ne fait peut-être pas l'affaire. Il se rend compte qu'un allié a été exclu, et que cet allié était un allié de taille, peut-être au second tour, et il décide de reporter les élections. man lecture boobu laa ci mais euh, comme moom moo tiire vin comme xëy na vin na ko tout simplement il ne faut pas qu'on nous embarque dans une situation bu nga xam ne amuñu problème les trois institutions sont d'accord ci report bi donc amul crise institutionnelle le peuple sénégalais ci maturité am toog na di ko xool ne ko ñun du ñu mettre le pays en dessus dessus en dessus dessous pour ces histoires la ñun ñi nga xam ne on est dans l'opposition parce que fi ma bokk ñun dañ ne dañuy continuer suñu activité de campagne acteurs société civile yi nga xam ne taxaw nañ ni comme tey ñu ngi ci février 2 avril c'est dans c'est dans c'est dans deux mois am nañ temps teg ko pression ngir mu organiser suñuy élection pourquoi de manière très hâtive on veut nous tout de suite ci dialogue mel ni problème dafa am ci réew mi alors qu'on était ko dañ doon waaj dem élection un problème amu fii def nañ li nga xam ne def nañ ko nañ ko assumer tout seul li ñu teg askanu Sénégal mu nekk une nation pour un dialogue yéen eh, àndu leen ci dialogue ñun yéen yéen ak ñoom Ousmane Sonko ñoom Bassirou Diomaye. luñ ne ex buñ ñun kay comme on n'existe plus comme ni ko waxee suñu suñu eh, ni ko Abbas waxee ce matin. Hmm. ñun kay comme dañu dissoudre kay lu tax ñu ñu boole ci dialogue. <laughs> yéen a ci biir de. <coughs> nu ñu nekkee ci biir. ñun bu ñu kenn <laughs> boole mënu fee am sans yéen bu ñu kenn boolee ci loo xam ni suñu yoon nekku si ñun li ñu wax dafa simple gisuñu luñ fi dialogué pendant douze ans Macky Sall a dirigé ce pays nous l'avons laissé diriger et nous nous sommes opposés nous nous sommes opposés de manière républicaine républicaine ah oui ah quand on bu ñu bu ñu ñëwee songuñu ils ont eu ils ont su à qui ils avaient affaire léegi may nañ ñu jàmm parce que nag réew mi dafa am ñoo xam ne xamuñu njëkk ak teraanga xamuñu xam-xam xamuñu waxtaan ci économie ku ne am ay de points de vue différents donc li ñu xam aussi benn moment mooy ay complot ak yeneen am na noo xam ne nag fii kenn ñàkkuy fayda réew mi ñoo ko bokk bu ñu buggee jàmm ñëpp a koy mayante ça c'était pour la parenthèse li ma bëgg a wax rek mooy pendant douze ans Macky Sall a géré ce pays et nous nous sommes opposés et nous n'entendons pas changer notre logique d'action pour lan ñun poste yëngaluñu bu dee afa am ñu poste intéressé ça fait 12 ans qu'on s'oppose bu doon poste mais vous avez intérêt à dialoguer boo leen bëggee Ousmane Sonko génn ak euh, Bassirou Diomaye Faye ak seen ñoñ yi ñu téye prison yëpp te xam naa ne est-ce que Ousmane Sonko est-ce ak li ngay wax ni dama ne man li ma li ma xam nous se que nous portons c'est un projet de souveraineté li ñu gëm mooy système bi fi nekk tënk askan bi pendant depuis les indépendances dañ ko war a tinki et la preuve quand un un seul une seule personne le président de la république se lève avec un seul papier mu postpone lu nga xam ne askan wi yëpp dañ ko bëggoon loolu mooy wane rek ni gouvernance bi ñu soxla ak indépendance su trois pouvoirs bi ak ni population yi war a nootee système bi ba ñoom ñooy diriger mais pas les hommes politiques dafa des ñun projet wax projet boobu Ousmane porté na ko ñëpp jàpp ne ñun ci culte de personnalité lañ nekk bañ demee ba xam ne Ousmane mënul dem Ousmane dafa xool ci kàngamu parti bi yépp ne Diomaye la ñun ñëpp ñu ne Diomaye la donc ñun amuñu ay problème de personne ñun nous ne sommes pas figés sur des personnes nu portons un projet suñu liñ dafa claire ku bëgg ay dialogue ay yooyu yëpp amul benn njëriñ pour ñun ça ne nous intéresse pas ñun la seule chose qui nous intéresse notre seul et unique interlocuteur le la seule chose que nous portons c'est un projet pour le peuple sénégalais. merci beaucoup Macky nag mën na pousse autant qu'il veut mais wiiri wiiri dina jaari ndaari. merci beaucoup.